رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله في ak xéewal li ci daje ak maqaama yi ci nekk kenn mënu koo wax fi ñu toll bi ngay gis ni juróom-ñeenti mètre la te juróom-ñeenti mètre ku ne xam na ne bëriwut mais teewut ndox maa ngi gën di ball di roogaat ba pare nekk ay karaama yoo xam ne moo ci sosu amut xeeti jàngoro joo xam ne dana ko ci jaaree di ci saafara muy lum mën doon ci kaw suuf ndax lan ku xool yi nga ci bitim réew mu jaral ko alal ñu ko ciy def ngir bëgg yàlla ak yonentam dëgg-dëgg ñoom ku xool ci ñoom rek da xam ne lii karaama te ñoom bu ñu demee ba àgg Nigéria wala Niger wala Benin wala Togo wala Malaisie fu ñu mën a àgg am nañ xeeti médecin traditionnel yoo xam ne moom lañ ciy def. fi ñu toon ni nga gisee médecin ci Sénégal gis ko ci internet beeg yooyu noonu la mel foofu ci ñoom ci lépp cinquante pour cent yi ci ndox mi lañ koy defee moo tax mu jaral leen lu nekk. waaw li tax mu mu anam yoo xam ne. Euh, ci ndigalal sëriñ bi la muy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu moo ko moom moo ko gasaloon boppam. gannaaw gi nag bi fi jógee dafa nëbbu woon moo lay xamal ne bàyyi mbiram dara du nëbbu nëbbu woon na ba nga xam ne pour ndox mi génn rek dafay jafe waaye bi yàlla nammee ndimbal almin masid ndollal googu moo tax mu def ko ci xoli xalifa baayam muy alhaji Abdoulaye Niass mu oo góor gi alhaji Ismaïla Silla mooy mi nga xam ne moo fi nekk ñun ñu ko fi kooku nag ku xool taarix bi ci Zamzam ak Ismaïl noonu la ko sëñ bi répété waat ndox moomu nag moom bi mu ñëwee bañ gësaat ko ay xéewal yu mag yoo xam ne moo ci nekk bëgg gi bàyyi bëgg yonent bi moo tax waxtu wu nekk rek def karaama gi nekk fii mu koy ut ndollal ci bëgg yonent bi saa su jógee koo ci màkka dafay indi Zamzam foofu euh, sotti ko fii ngir dollee ko xéewal ci bëgg yonent bi kooku mooy Cheikh Ibrahima Niass kooku mbiram mënta ñàkk a mel noonu ndax kuy bëgg yonent bi moom moo la dàq bëgg yonent bi amul dara lum ko jar bis bii bu bu ko ku ko fekkee woon ci moom foo tollu di ko seen mi ngi melax di takk di leer di ndax bëgg yonent bi di muuñ foo ko fekk rek ndax xam na ne bésab yonent bi jot na te bés boobu lay lay lay lay màggalee juddoom. taalibe yi nag dañuy bawoo ko fu nekk ci Sénégal ak ci bitim réew ñëw nañ te képp ku ci ñëw fi li ngay njëkkee. boo ne cëpp fii ci romb ci ci xay gi li ngay njëkkee mooy utal ci ndox mi tànk ci naan at yi weesu fii nga taxaw sax mënoo fee taxaw at yi weesu ñaari at yi weesu fi nga taxaw mënoo fee taxaw ndax mbooloo mu bëri léegi fi ñu toll ni ci kanam jëm 15 heures dañuy mujj obligé dem jëli sababul fayda ak police poste police yi ñu ñëw defal ñu barrage pour sécurité ñu ndax mbooloo mu bëri euh, at mi ñuy wax 2010 bi ñu ubbi fii daanaka dañ doon dajji teen bi ñoom ñoo ko dajjil seen bopp di wax na ñoom duñ ñibbi te yóbbuwuñ ndox duñ dem te yóbbuwuñ ndox ñun suñ tëjee cinq minutes ñoom ñoo ñuy forcé ngir ñu ubbi ko ndax lan bëgg giñ bëgg seen sëriñ ah, di tëbb ci barkeem de di yaakaar ne danañ am texe ci moom ndax loolu la leen loolu leen ji wan na leen yoon bi ci yàlla ndax moom wax na ne képp ku bëgg a euh, góob da ngay ji ku jiwut doo góob tool baa ki ni nag tool bi yaatu na ci yàlla joxe sa alalang ci joxe sa dooleñ ci joxe sa xalaatañ ci joxe sa xam-xamañ ci ak mboolem loo xam ne mën naa dimbale loolu pour l'islam bi yëkkatiku ndax l'islam bu yëkkatikoo rek du man la yëkkatikul du keneen ñëpp la yëkkatikul salaamu alayka ya ya ya nabiyallah ya